ma jël ànd rek ah angle corniche. waaw rue angle corniche yéen a gis. yéen noonu dafa mel police dafa bëgg a ñëw côté bi. policiers yi dafa mel ni dañoo wiiri. policiers yi ma gis nii dañoo mel dañoo wiiri. ñu ngi si euh, angle corniche euh, fii ci diwaanu Médina alors euh, ba tey gis fii tamit gars yi ñu ngi taal pëna continué maa ngi lay jaar alors naka naka naka nga gisee. li mel ñun waa Médina dañoo namm yi. attention non kaay côté bi kaay kaay non déjà yéen a ngi gis noonu yéen a ngi gis noonu xale yi taal nañ xale yi bi nga xamante ni yéen a ngi gis euh, jamono ji ni muy tàkkee fii mais est que c'est sûr parce que saxaar si dootoo gisee ci dara est-ce que autopolice bi finalement tourné si beneen côté bi voilà am na benn waaye boo xamante ni nee na mu ngi may masaw si téléphone bi nga xamante ni dañ koo gendarme bi da koo daf ma ko daf koo mu daanu voilà dafa mel ni autopolice bi dafa mel ni autopolice bi mu ngi mu ngi waay la taxaw rek maa demee si nag dégg xale yi ñu ngi arrière dafa mel ni dafa am benn auto police bi waaj a ñëw si beneen côté bi voilà Djily Mbaye yaa ngi gis noonu ñu ngi taal li nga xamante ni moom mooy euh, moom mooy euh, tali bi policiers yi nag si euh, beneen côté bi dañoo tourné parce que fi na ne fii yëpp dañ ko bloqué ak ak ay pneu daal di dagg li nga xamante ni rek moom mooy euh, circulation bi ñu ngi noonu xale Médina yi ñu ngi taal ci rue angle corniche bi la ñu nekk ni allo ok d'accord voilà yéen a ngi yéen a ngi koy gis donc alors fii ci bëri na gars yi a xale yëpp ñu ngi noonu avancé arrière.